dafa am kilifa gu nekk Touba damay tudd turam ndaxte sama xool xarit la sama wóllare la muy Cheikh Bass Abdou Khader euh, moom ak ay kilifa yu bari Touba euh, dañuy faral di waxtaan ak man di diisoo man di ma laaj sama xalaat ci mbir yu xew ci réew mi ak naka laa ko gisee ak nuñ ci war a taxawee. Euh, bi élection yi jàllee daf maa woo ni ma bëggoon naa ñu waxtaan ci réew mi muy élection 2019 ma xëy dem seeti ko ñu toog waxtaan. waxtaan ani ko daal ak lu man di xew li nga xam ne mooy ñëw war nañ cee bàyyi xel mu ni ma lan ma ne ko Ousmane Sonko moo nekk troisième ci élection yi xaw ma élection yéen di ñëw dooleem dina yokk am dina wàññeeku waaye ku am looy tiit ci moom waa Touba ñoo war a gën a ci moom. ndax kat pexe bu jubee Touba lay jëkk na saxal lii xew Touba di façon diine bi tuuba am. bokkul ak li nga xam ne ñoom jublu nañ ko mooy ñi mu àndal jublu nañ ko mooy salafiste yi ma ne ko loolu war nañ cee bàyyi xel mu ni ma li nga wax ni kat moom sëñ ma jàmbal lu ñu war a waxtaane la waaye lii kat jar naa tiit du moom rek laa ci waxal wax naa ci yeneen kilifa ya nga xam xamee ni que ci Touba lañu nekk jege xalif di waxtaan ak moom te euh, defe naa ni euh, sama diggante ñoom ku xam na ko